ñu baatare ku poser question grand Serigne. Mm-hmm. grand Serigne. Mm-hmm. bii trente quatrième journée la. Mm-hmm. trente quatrième journée B ce qui veut dire amoon na A am na B peut-être sax amoon na C. dafa léegi làmb dafa dox. nekkoon dimanche avril 2015. stade Lamine Gueye bu Kaolack. Aziz Ndiaye production moo ko tëggoon. ñu doon laajte grand combat boobu. kan la woon kan ak kan ma rappel ma répété waat. 34e mhm. journée B. Mhm. dimanche 19 avril 2015. Mhm. si stade de Lamine Gueye de Kaolack. Aziz production moo ko tëggoon. bu doon laajte grand eh, bi. mais xam naa ko kii la ko kan ak kan la. Eh, le fou de Thiaro la Baye eh, Mandione. Baye Mandione ak Bruce Lee. te ñu wax songandoo na fa songandoo yu métti ñoom ñaar kan moo daanoon. mais Baye Mbaño la ko daan. Baye Mbaño la ko daan yu bëree bëri. moo daan voilà. donc vingt septième journée la woon. Hmm. vingt septième journée A. donc dimanche 22 mars 2015. ci hmm. stadium Iba Mar Jax production moo ko tëgg. ñu mhm. la doon laaj grand combat bi comme yow su euh, làmb ak see fii yow la en grande partie. Mhm. donc kan kan noo bëre woon grand combat bi. Jax mooy gos bi sol mbaxana mi laa. voilà voilà nekkoon stade Diop. bis mhm. boobu stade Diop Iba Mar Diop. benn indice ngoog beneen indice mars la woon 2015 ñu lay laaj grand combat bi le grand combat bi sax ki doon bëree face la nekk. gris gris rakku gris boo gris boo gris 2. ak alam alam daar ak ku nekk waalo. alam daar alam daar voilà ñu ngi ay gris boo moo daanoon sax de. waaw gris gris 2 moo combat bu gaaw sax. voilà voilà voilà. treizième journée. Mm-hmm. nekk dimanche janvier et production moo ko tëgg ñu la doon laaj nag grand combat bi kenn ki mi ngi nekk écurie Habib Ndiaye kenn ki nekk écurie Bawol Mbooloo ban mbër la woon ak ban mbër. kenn kan la Batista Batista Batista ak Fall ak benn mbër bi tudd Fall Ibou Fall xaw Batista Batista Batista Batista moo daan. Formidable. Um. kon samedi 31 janvier 2015 nag du woon Ngor ni woon Stadium Iba Mar Diop. Hmm. Euh, Pape Abdou production moom moo ko tëgg. ñu mhm. la doon laaj grand combat bi kan la. ma doon répété waat joxaat la indice quatorzième journée la woon samedi 31 janvier 2015 si stadium Iba Mar Diop. Mhm. Pape production moo ko tëggoon. Mhm. grand combat bi kenn ki mi ngi nekk écurie Double Less. kenn ki nekk écurie Rock Énergie. ñu la doon laaj nag. kan ak kan noo doon bëre. mbay Mbaye mbay Guèye 2. Mbaye Guèye junior. Mbaye Guèye junior ak ak ak Van nekk Double Less. Van Damme ak Van Damme. kan moo daanoo Mbaye Guèye moo daan. Mbaye Guèye moom moo daanoo. très bien. <laughs> très